maa ngi nuyu kilifa yi fi toog waaye di ci jiital na kilifa diine yi ndax euh, lu mel nii bu amee nitu diine rek la ñuy tëral kii ni ko doxal ci kanam kon maa ngi doore foofu nuyu leen jaale mbokk yëpp kii nag man mënu ma woon sax ñëw sama yaram neexul waaye kii mënu ko tan xam lu ndax ah, waajuram Amadou Kama yaayam Ayda mii fi des xoyaan xoyaan euh, kër ga ñëpp lii Mansour mbay wax léegi itinéraire baayam la fi baayam jaar diggante Richard ak avenue de la liberté fi ñuy wax euh, Pétavin léegi foofu baayam dëkkoon ne fa fële juddoo Ki bi mu mansur Serigne Mansour si dafa ak Serigne Babacar ñew senegal ñew Dakar mu mu juddu Serigne Babacar yebal Serigne Mansour ni demal tuddu ko mu dem tuddu ko bopam waye mu di ñoo xamni euh ñaar rek lay wax mu jeex ben bi modi Mansour mi dafa digale won ak tey jii àddina seedeel nañ ko seen bopp ni li mu doon def yëpp rafet na mat na kon àddina wax nañu bi ci des mu digaale ko yàlla yàlla ko dénk ay waajuram ci ay anam yu bare mu taxawu waajuram yooyu ba gisatu leen taxaw wu magam ñooñu ba gisatu leen mu taxawu jigéen ñi ñoom ayda fa tabarakallahu kon bu ko nit ñi seedee yàlla mën na ci sukkandiku ba luñ ko ñaanal loola topp ko yàlla nag moo joxe ak waajur ci doom ni doom war defanteeg moom matul di jaar waaye ñu waxe ko noon eh, di jaale ñépp di jaale kii nag baal mi maag moom a mujj toog ak Mansour mi suñu jotaay bu mujj maag moom la ak Mansour ñu toog ndax man dama am ñoom diggante dama am dama am ak ñoom diggante bu réy réy réy eh, seen kër booba yi yëpp xewul ma doore ko ca père layti Mansour mi ak jigéen ñi alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi leen koy jaale euh, Mansour lii ñu ko seedeel exemple la mooy jëf ju baax la yóbbuwaale wu ko waaye jëf na ko fi kon ku fi wuutu gannaawam war nga roy ci moom